bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï ginnaaw bi ñu ñëwee seet si nga xam ne mooy Wan Pokola gis ko ni mu waajee di nuyu waa Pikine ci teewaayu mooy mooy soq bu ndaw Ibou Afia ñooñu ñëpp buy si nga xam ne moom mooy Pokola Baldé di gërëm waa Pikine nag gis ni ñu jàppale seen doom seen jarbaat seen frère Pokola Baldé di wane bëgg leen bis bi su ma jëlee nuyoo bi teg ci loxo nga xam ne moom mooy bay laa nuyu naa ñëpp foog ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan. bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah alamin maa ngi julli si yàlla waaw di sant yonent bu tedd bi jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaaraama Fall Lamp maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu bëri fi teew di a baax a baax a baax a baax di ñaanal sama nijaay Ama Baldé yàlla na yàlla may ndam di ñaanal mbër Pikine yëpp képp ku si am combat yàlla na yàlla may ndam Soxna Baldé yàlla na yàlla may ndam ku si am combat yëpp yàlla na yàlla may ndam. ay fan de sa diggante bi nga jàkkaarloo Gackou 2 nan nga waajee ci côté xeex bi ak côté bëre bi ndax gis nañ ne yaa ngi bëre mbër mu dangereux aussi comme baax na ñun dañuy yor fu ñu war a yoree dañu waajal rek yàlla baax na dimanche ñëwoon ba pare amatul wax ju bari waaw dimanche ñëwoon ba pare incha allah nañ ñaan yàlla yàlla indi ko si jàmm mu ñëw si jàmm man tamit yàlla indi ma si jàmm ma ñëw si jàmm loolu rek laa koy ñaanal ba dimanche incha allah. ñu gis Pokola combat lu cëpp du xaar. bu arbitre ne far may jàmm fekk li am amul. ndax na nga daan bëri ngay ñëwee wala da ngay taxaw déglu sa adversaire wala. non ñun bu ñu tàggatee rek loolu la ñuy ñëwee lu ma waxoon rek dama si dellu damay ñëw am si signature ba rek Lamine mu damay ñëw. da ngay ñëw waaw billaay damay ñëw. xam na loolu bu baax. Pokola ndax xam nga fi nga xam naa ko bu baax a baax baax baax xam nga moo tax ma bëreeg moom waaw mbër bu am ay qualité la waaw dañ ko koy nangul mais dimanche yàlla na yàlla ànd ak ñun waaw tey sa diggante bébé waaw ñu gis bàyyi na lépp ñëw ànd ak yow ci bis bi tey seen relation non kooku sama dum naa ne sax sama sang la ndax dañoo ànd man ak moom ba ñu nekk booy maaro séerag yor ñu dañuy tàggatandoo teewaan pël ñu yóbbu heure bu nekk dañuy yéeg loolu din heure bu nekk boobu moom melagul man melaguma comme nii waaw noonu la demee quoi ànd bu yàgg la waaw loolu kese la di ko ñaanal jàmm nag si combat bi bu jëm yàlla na ko yàlla may ndam ak Ibou Afé booy fi teew yëpp ay ñoom waaw Viengolo waaw sama booy ba mafia grand yof yi ñoom ñëpp waaw maa ngi ñëpp nag di nuyu waa Tëngéej bu baax a baax a baax mafia Papa Yadda bi waaw di ñaanal yëpp di ñaanal Silbala Signor yàlla na ko yàlla xare àjjana Silbala Signor yàlla na ko xare àjjana waaw waaw loolu tam bëgg nañ cee taxaw ndax gis nañ ko sol seet si Balla Junior bu mel ne kon ba cee génn sa biir xel ak sa xol non génn suñu biir xel ndax moom lu nekk ñun am na lu bëri suñu carrière moom joué na si quoi mais yàlla baax na yàlla ko yàlla xare àjjana daal xare àjjana bi képp wooy doole képp daal na yàlla xare àjjana incha allah gàkku de lan la laaj xeex wala bëre. Lamine parce que gis nañ bëgg nga xeex trop mais dafa am combat Lamine xanaa doo ma dégg de damay dox si kawam damay dox si kawam incha allah yàlla may leen ndam lu sedd guy damay dox si kawam na ko waxoon doo dossier loolu muy bañ a dégg du jël du dafa am loo doon sàkku ci moom mooy waa géej waay yëpp génn nekk ci ginnaaw waaw nga gis bi waaw waxoon nga Jules Baldé jox na la clé victoire bi <laughs> moom tamit démb gis naa Balla xëcc ko ah di ko di ko di ko ci yenn action yi nee na jox na ko kala victoire bi de te lu ma jaaxal kon ñaare dugg waaye benn génn. loolu yëpp ñoom ñëpp xañ nañ ci. lan ñoom ñëpp si xaj. ci combat ñoom ñëpp xañ nañ ci. le 29 ñoom ñëpp si xaj kenn du rek boo xamee kañ ngay dee jarul boo xamee kañ ngay dee jarul ngay xaru Lamine incha allah. Mbassa Mbassa leen déglu dafa a. waaw dafa rëy lool lool lool. nga boo xamee kañ jaru ngay xaru. jaru ngay xaru di nuyu mafia ginnaaw raay bi yëpp mafia presse bi ñu leen nuyu ñoom ñëpp mafia ginnaaw raay presse njool mi waaw ñu leen nuyu bu baax a baax ak paa bi tamit ma fi a ginnaaw raay bi nuyu ñëpp di nuyu fi nga ma fekk nii fi nga xam ne fi leen jàngee football mooy bayalu affaire mission mission mission mission dama ko laaj ni ko dama ko laaj ni ko Pokola nee na dafa am mission bu mu eggale si géej waaye dafa mu bëgg koo eggale waaye moom nee mission Boy sax eggul ba yow nga wax. nee na nee na bus na. mission. waaw bu Boy Niang. eggul sax ba yow ba nga doon da eggale mission. non moom loolu bu ko waxee moom loolu bu a waxee yeggul géej waaye kon moom la dem xoolaat boppam. da xaw doo ma dégg kii lu ma waxoon laata Balla jox ma ma koy daanee du dossier di ko nuyu bu baax a baax def ci moom surprise la wala wala wala yaa ngi ko bu ñëwee daa war a bu ñëwul daa war a ñëw te suñ père la incha allah moom day jàpp si affaire bu baax baax di ko ñaanal jàmm bu baax a baax combat bi di ko ñaanal jàmm baax a baax yàlla may ko ndam ndax ñoo bokk Pikine ñun ay doom Pikine lañ duñ daw fenn làqu mais ku ñu wàlla yàlla booleel yar ak taalibe ñu ànd ak yow benn buum la kenn mënu koo xar ñaar bilaay laay ci bis bu rëy muy le fait ne boo jógee sa nijaay Ama Baldé dëgg man bi daf du di si ko ñaanal bu fekkee benn ndam yàlla na ko dugal ñu ngay ñaanal Ama bari sëñ Fallou Mbacke bu fekkee benn ndam moo fi nar a am yàlla ko indi Pikine wa doon yi jàppale la na ko jàppale nag. autorité Pikine yi ñu ngi nuyu ñëpp di di jël nuyoo gi. ñu ngi nuyu moo Gueye di jël nuyoo bi di ko teg si kaw Pape di nuyu di nuyu moo Gueye bu baax a baax a baax président AS Pikine Paa Idi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di baalu àq dëkkandoo yi bu baax a baax a baax a baax a baax dëkkandoo yi ma dëkkal. maa leen di baalu àq bu baax a baax su ma amee combat ñun ñëpp dañuy sonn koñ bi kenn du nelaw mais moom tëri bokk heure ñoo mën a ànd quoi. comme lu ma waxoon rek nit ñi ma yàlla jox ku ma leen xeebal rek da nga maa xeeb quoi. mafia yëpp ñoom ñëpp a bañ ñu nuyu waa Camp Pénal waa Samet bu baax a baax a baax a baax a ñu nuyu waa Cap Manuel bu baax a baax jeen man yëpp waaw di ñaanal di ñaanal professionnel yi taxawgul amgul kii bi yëpp yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla woo ñu ñoom tey amiin waay Pablo Cissé ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax jàpp na si bis bi bu baax di woo Morlo bu baax Morlo bu koy woo bu baax a baax a baax Mor Talla duñu ngaaka moo ma jox lii bu baax a baax a baax di ko sant di ko ngërëm waaw waaw maa ngi nuyu waa Pàkk Lambaay waa Pàkk Bel-Air di nuyu Amed Diop bu baax a baax a baax waaw di nuyu waa Curuba di nuyu waa Jiboo bu baax a baax a baax a baax waa Géejawaay maa leen nuyu waa école neuf waa sixième sens Chicago Miami jàmbaar ñu ngi bu baax a baax a baax nuyu ñëpp par boobu ndoom waa Chicago di leen woo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax bilaay di woo waa nit ñi ñaata minute ñaata minute ngay wax sa adversaire déggoo ma de xanaa doo ma dégg waxal ma dégg la xanaa doo ma dégg la xanaa doo ma dégg waxal ma dégg la incha allahu rabi dimanche dina xeex dina bëre jërëjëf waaye yëmbal matin waaye yëmbal maa ngi nuyu waa bu baax a baax a baax a baax leen nuyu bu baax waaye yëmbal matin leen nuyu mafia yëpp waa Daaru ñu mel woo waa ginnaaw raay waa ginnaaw raay ñu mel woo ci bis loolu benn suur la ndax la boo xam ne gars yi seen Pikine ñoo pour pour liggéey ko quoi nuyu ma gaa weexal bu baax a baax a baax a baax